ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di xalaat tv ñu leen di dalalaat ci seen jànkatu bés bi tey dañu ñëwaat ci suñu rubrique var ñëpp xam nañ ni chaîne bi dañu am benn rubrique spéciale pour yenn politiciens yi nga xamante ni ñoo tax Sénégal yi ci bari si politique ñoo tax ñu bari gedd ne dootuñu sax ti ndax koo voté mu wor la ku ci mel ni bamba fall dafa ñëw daal di confirmer loolu wax dëgg fa yàlla ñun kaam naruñ ci woon sax attardé wu ndax dañ ne kii du nit ndax ñàkk yor koy doomi aadama melokaanoo ni mala mooy def li ngay def ba noppi di menacer jaam yi te ci di traité seeni woyjur ak seen waa kër ay golo maanaam yaradiku bu ànd ak arrogance la bamba fal wone ci ko joo xam ne bu ko wone woon ba muy campagne barki demoo njaay waa medina duñ ko votel am na ñoo xam ne bu ñu bëggee gole bu ñu gole dañ takk seen waa kër def ko seen bundu kër ndaxte man non du ma buubu golo kenn nag ku am fayda laa nag parce que yow sama problème yëpp maa ngi ci kenn ci ñoom ñiy wax kenn ci ñoom fekkuma ci dimbali ma ci mais tey seeni clavier la ñuy toog di wax ñun ñu lu leen neex mais bu ñu ñemee nañ ñëw jàkkaarloog man wax ma ko dootuñu ko dolli. li ñuy nag leeral fii mooy ku ne am nga droit ànd ak Macky Sall appartenance politique kenn du ko tànnal kenn ku ne libre nga. mais li doy war ci kaw Bamba Fall te mu jur coow moy defin bi boy dem election na nga assumer ni man Macky Sall lay liguel mom la gem lay soutenir la fal fal la ci ku la ciy folli gem yalla dess ak mom ñun yalla xamne ni dañu respecté candidat yi demé won ci couleur benno bok yakar ba ñu faleen ci ndax won laqatu ñu won dañu assumer won sen appartenance dañoo assumer seen bokk ci Macky Sall fësul ko dem ci élection ba ñëpp xam ko mais li lâche li ñaaw mooy nga ñëw nax waa Médina ndax ñëpp xamoon nañ ni dafay voté contre pouvoir leeroon na. candidat bu fa présenté woon naan Macky Sall laay jàppale doo falu ak loo fa mën tuur ci xaalis ak loo fu mën a présenté ci programme léegi yow nga ñëw ne leen lépp lu takk ci Macky Sall bugguma soxlawuma bokk ci coalition am soxlawu may ndombal tànkam. man du ma yënde fii dama ne ñi fi jënd xam nañ leen bu ma taxaw wax ñi fi jënd ak ñi fi jox xaalis xam naa leen waaw dama ne dama la man lekk ma ñaar dërëm mu Macky Sall soxlawu may postam soxlawu may postam soxlawu may postam man transhumé wu ma tey transhumé wu ma ah, mais may ko mu wax ànduma ak Macky Sall ci parti ànduma ak moom ci coalition ànduma ak Macky Sall ci parti ak moom ci coalition ànduma ci parti ànduma moom ci coalition donc kii doon wax naan du ma transhumé tey du ma transhumé ëllëg soxlawuma itam benn ndombal tànk tukkee ci Macky Sall xaalisam na ko noonu coalition fas yéenewuma bokk ci nañ ko dégluwaat bërki démb revirement de situation bu spectaculaire bum ñu may. man président daf ma bette benn sac ndax wóolu na ma bërki démb ñu waxtaan waxtaan ci mi euh, tey tamit mu wóolu ma ni ma def naa la mise conseil auprès du président ma koy sant di ko gërëm. donc mbir mi. newul ni ku and ak Macky Sall dañ lay diaboliser dedet am ñu and ak Macky Sall te kenn musul len var mba wer len ci penc bi mais politique bi ñu bëgg saltel japp ni bala nga koy mëna dëgg faaw nga mëna wor mëna waccu dal daal di koy lekkat wax li demb tay ñu duffal sa poche nga soppi discours mel ni doon yaw say waxi demb buñ ko comparer ak yu tay mu melni ñaari yu bokku la xéetu politique bi lañ ni mënul woy ndax képp ku ñu dénk ndombal tànk moo xam ngay maire député ministre mbaa yéegi ci président bu weesoo liggéey bi ñu la sant dañuy xaar ci yow itam nga doon référence doon royukaa ci ndaw yi nga am ay qualité yu la xale yi mën a royee nga marqué leen à vie moo tax vidéo tay bi bu weesoo VAR bi maanaam wan sénégalais trajectoire Bamba Fall la ko tàmbalee PS parti socialiste ba ni mu waree xalifa Sall ànd ak moom ba ñu tëj ko kaso mo waroon nek ci wetam jappale ko mais ñi nga xamni ne ñoo tëjlu woon xalifa sàll moment bi khalifa nek prison ñooñu la bamba fal dem andal di càkkaay di lulu ak seeni jek di Yata yumbe dañu ñew ci loolu lepp ndax dañu bëgg taxaw tay ci personnalité doomi adamé bi ngir ñu jang ci ñun sénégalais yi nga xamanteni ñoy fal ci bu politicien tambalé am yeen comportement yi ndax dugguleet gis nañ fi Idrissa Seck Aïssata Tall Sall si Sy Mamadou Tunkara tey Bamba Fall dooleeku ci léegi ñun ñi nga xamante nii lañu jàppee seen jaaruwaay ñi ñuy foowee ngir mën a mos ay privilège nguur ndax jotul léegi ñun ñu gën a sévère ci anam gi ñuy toppee politiciens yi maanaam ban programme lañu jaay discours politicien bi ndax méngoog nag li ñuy xaar ci moom ngir mën a defar sama gox mbaa suñu réew ndax nangam ndax nangam testé ko ci phase yëpp parce que boo déglu bërki démb Bamba fal gannaaw ba mu transhumé ba nee dafa organiser conférence de presse ànd ceeg waa APR ndeke moom benn gis-gis dongul la mu sàmm ci politique moo ndombal tànk nguuru ak privilège duma bañ loolu parce que ku naa fekkul booy politique bëgg ngaa dégg monsieur le maire honorable député monsieur le ministre wala monsieur le président de la république bu fekkee ne bëggoo koo dégg soxlaatul politique kon li ñu naan ku wax feeñ moom wax nañu tey ban vision la yàggam ci politique mooy ay titre tab nañ ma nangam ñi may wooyu turu sangam manam moom boppam mais pas askan wi ak mbolo bi topp ci amul vision politique amul ngëm-ngëm bañ na ko ba bi ko Macky Sall nommé ministre conseil ba noppi dafa ni Macky da sagal pour moom politique ay ndokkale laak sargal ak delloo njukkal. benn donc moom vision bii la ci politique yàlla xam na ni suñu genre yi ñoo ci nekk di sonn di vaar mais moom la mu waxoon daaw ak bërki démb fàtte na ko parce que tegu ko woon ci ngëm-ngëm tegu ko woon ci dëgg dafa doon naxante rek ba jàll déglu leen li mu doon conseil bërki démb xalifa sàll ci opposant nan la war a mel ci kanamu nguuru Macky Sall. li ma koy digal nag noppam gi daa ëpp ñëw taxaw problème askan bi mu wax ci xeexandoo ak ñoom dugg ci marché yi loolu mooy gañaloo nit de waaw. li ma koy wax mooy ñëw xeex man pro askan bi bu amee problème pour man policier dañoo war a génn loolu la ñuy doy doyewuñu leen jiite julli doyewuñu leen ay jàng li leen doy mooy askan bi seen coono ak li ñu bëgg ndax ëllëg askan bi leen di fal. moo tax ku mel ni Ousmane Sonko des fois dama koy rendre hommage Guy Marius Sagna dama koy rendre hommage yooyu daan na am yaa naa ak ñeneen kon Macky Sall jamono ji muy nekk opposant su may déglu léeg-léeg nga teg yi Macky Sall doon wax pour man yooyu bu ko déggee sax dafa war a Guy Marius Sagna ñoo ko Bamba Fall bu démb nee na opposant mooy taxaw askan wi wàcc ci mbedd mi di xeex ak takk der yi dëggal sa bopp mais gannaaw buñ ko séddee ci tong bi comme que Sénégal léegi benn gâteau bu ñuy séddoo nee na opposition bi wàcc ci mbedd mi di revendiquer ñoo yàqkat yi mu ne opposition boobu noonu nañu dem ànd ak Macky sàll li ñu nekkee du dëgg du yoon. nañu rejoindre njiitu réew mi ñu ànd liggéey réew mi ndax réew boo ko bëggee waroo ko yàq réew boo ca bëggee jot ëllëg bëgg koo defar war nga fekk mu baax kon nañu bàyyi yàq yi ak xeexloo xale yi àndandoo bu élection jeexatee ñu ànd ak ki fi yàlla teg ñu liggéeyal réew mi. dama ni nga lan laay wax. Médina ku ma ci dimbali laay wut président Macky Sall dinaa la jàppale ba mu naaw ba kenn ñëw ni ma doo ànd ak président su ma ko waxee ma toroxal ko vive le président Macky Sall vive la République vive le Sénégal. donc lii la ñu naan jikkoy naafeq maanaam moom Bamba Fall dem ba naan opposant dëgg-dëgg mooy kiy wàcc ci mbedd mi di xeex loolu lépp gëmu ci woon dara kon kuy wër naafeq rek jàppal jëmm ji gëmul dara prostituée politique la. dafay jaay bopam wax nañ leen di barki demb parti socialiste la nekkoon militant PS la won man bi ma 14 ans la dug PS def na fi plus de 30 ans dans le parti Tanor ñoo la njëkk parti socialiste on est socialiste avant toi on est socialiste avec toi et nous serons socialistes après toi. gannaaw parti socialiste mu dem and Khalifa Sall ci taxaw Dakar ñun tay lañuy ñuy comprendre ndekete Bamba Fall bañu ñuy tayle PS Macky Sall di sel seel benno bokk buñ ko won ministre jamono jojo du dem and Khalifa Sall liñ ko ñak jox ndombal tank jamono gi PS di lëkkaloo ak Macky Sall motax mu parti socialiste dem anda Khalifa Sall ci taxaw Dakar te xamni bu andek mom dina mëna doon maire ndax Khalifa amna doole ci capital bi donc ci liste taxaw Dakar bu Khalifa Sall lañ ko jëk fal maire ci ay élection mu bok ci leet naaw Khalifa Sall yi moom ak Barthélemy Diaz. Khalifa Sall dafa révolutionné xaalisu Ndakaaru ndax dafa ni bu njëkk ba fekk naa fi secours trois cent mille quatre cent mille deux cent mille Bamba yow mi yor comité bi ànd ngoone mbeng yamale leen secours yëpp mu tolloo muy quarante mille muy secours jullit di secours catholique secours yëpp quarante mille la ko yemale. waaye lan moo xew après ba nguur sàkkale pexe Khalifa Sall ba tëj lu ko kaso Bamba Fall en tant que showman. génn dafay déclaration ne du dëgg du yoon dañ ko bëgg jaay doole injustice lañu ñu teg ci kawam mu taxaw ci plateau télévision yépp doon défendre Khalifa Sall. tey mënoo jël état ni mooy porter plainte Dakar war a porter plainte Dakar def délibération ni porté wu plainte fi ko Khalifa dugal ñoo ko sant jaay doole fi ne. mais nag na ku nekk xam ne bés sa nguur dina jeex. na ku nekk xam ne parce que at yi weesu da gis nguur gu daanu tëji nit.

période yi mu gënoon soxla ku ko jege jamono joo xam ni demoon na ba waajuram bu jigéen moo génn di def déclaration ci tiis bi dal ci kaw doomam. waaw moom rek a yaakaar moom laa yaakaar rek a yaakaar sama doom ju baax la nag. waaw lu baax a baax a baax a baax waaw doom ju baax la jooy naa ba bëgg a dee sax waaw. waaw xanaa ni ñu ko ni ko def ni ma mën a xar te xam ma ne ma si dara. période difficile que Khalifa Sall même moment bi, le monde Bamba Fall en ñom Aliou Sall Benno Bokk Yaakaar yi teg li lepp Khalifa Sall di organiser seen ndaja ak seen i ay di fecc ko mu la ni dara ki mooy Bamba amul principe amul valeur amul rusukaay jom dafa xëy mu gontu ku mu sëkkal wor la gannaaw lii lépp nag la ko ñoom xalifa Sall ak Barthélémy Dias tàmbali écarté seeni mbir xam ne kii warkat la du nitu dara lii moo waral Bamba Fall xat ci opposition bi ndax kenn wóolootu ko moo tax élection locale yi weesu investiruñu ko woon ci liste Yewwi Askan Wi mu dem ànd ak Bougane ci coalition Gëm sa bopp moo tax ñu ne bu ñu vigilant woon tuuti daañu bàyyi xel kàddu député Benno Bokk Yaakaar bii di Aji Mbergane ndax rëccale woon na ci plateau télévision ne ñëw waa Benno ñoo nekk ci ginnaaw yenn candidat wu coalition yu ci mel ni gëm sa bopp ànd nawle ak yeneen ak yeneen. ñi gagné ñëpp. ñu ngi ñëw ci yow Dame. liste parallèle yi ñu koy yor ñu demee ci tuuri gëm sa bopp. waa demee ci tuuri ànd nawle waa demee ci tuuri leneen ñooñu ñëpp ci Benno Bokk Yaakaar bi la ñu bokk. donc li ci mën a jàpp mooy. dafa am ñu nek ci opposition bi di opposé wu opposé lu di naxasaale ki tapalé di dal ci kaw Macky Sall melni ku ak di désordre ak jaxassé ci biir opposition bi mais bu guddi jotee ñooy doxantu ndànk Palais wala Mermoz séti Macky Sall di tëgg seeni dil bu élection amee ñu créé ay liste parallèle naan ay opposants lañ andu ak Macky Sall bu ñu gëm leen ci lolu bu ñu nous ba nopi ñu résultat yi la même chose mo amone barki démb ci ville bu Pikine bañ waré tab élu loko yi mbollem candidat yi nekkon ci liste gëm sa bop dañoo dem and ak benn bok yaakaar te bañ leen doon fal ñu woon askunu Pikine lolu kon ku ci melni ne mi nga xamni tay moy leader mouvement gëm sa bop ñun yag nañu demander ngir ñu leeral ndax da dafay liggéeyal makem déet musuñ ci nanguwaadu ndax duñu wax luñu worul ku dé ak sa bamel té lepp luñu wax rek bëgg nañ ko tek ci preuve ne fi lañ ko tek mais ak li ni ñu nemmee ko ci mouvement am fan yi mu ñoo xamni effectivement seen bop la gëm gëm ñu askan wi ñu falen ba ñu wor seen population li ñuy xaar ci mom en tant que leader moy cawarte gi ñu nemmee ko won ci mom fan yele ba ñuy créer la grande coalition de l'opposition chaque jour mu organise conférence de presse nan couleur bi verte la magenta wax yu amul bop amul genn tay amna lu gëna am solo lu mu war nañ expliquer ban jeu lañu nek di jouer ak askan wi ndax itam dootuñu nangu Ben soi-disant opposant di ñu nax ak a tayli suñu résultat lolu dootul amaté di ma saw nak mboolem électeur yi nga xamante ni war nañu len moo xam wa medina Pikine ak bép gox ci Sénégal ndax li trahison la mais nañu xamni ci ben wette c'est un mal nécessaire li daf ñuy permettre ñu xamé traître yi kat yi ak ñi politique ngir koom ba ëllëg ñu mën a xam fan la ñuy teg suñu tànk jiital nit solo ay programme ngëm-ngëm ak i valeur kon taxu seelu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di jaajëfal di leen di rajo incha allah beneen yoon ci beneen jàngat gaa ngi jëf.